Nous xam nga biñu élaborer le protocole sanitaire maanaam protocole boo xam ne euh, ci la ñuy pour euh, mën dérouler enseignement apprentissage ci biir école yi donc day am ay respect donc des gestes barrières yoo xam ne yooyu yëpp donc day tax aussi ñu euh, éviter aussi donc la propagation de la maladie mais ci biir loolu bi élaborer donc le protocole sanitaire les spécialistes donc donc de la santé

war obligatoire ci xalé yi am ba de dina am euh, raxas loxo yi le lavage systématique des avec de l'eau colorée donc lool di am dina aussi même euh, parents yi dañ leen exiger ñu sol masque mais enseignants yi aussi masque euh, mais parents yi ci école ba ci biir école yi xam bu da classe mais légui ci buntu bi lay yam dina fa fekk ah, jangale kat yi ñu sol sen masque yor euh, thermoflash bi pour mën a jël température xalé yi ba aussi buñ ñu euh ci toute la journée liñ fay nek lavage systématique toujours que ce soit ci heure de goûter yi wala heure de récréation toujours dañuy veiller ci ci lavage systématique systématique des